bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi guddik tey gi mooy guddik fukkeel ak juróom ñaar ci koor gi naafileg tey gi di fukki rakka ak ñaar kon juróom benn sëlmal la rakka bu ne faatiha benn yoon la inna anzalnaahu ñaari yoon xul wallahu ahadun ñaari yoon ma baamu ko fukki ak ñaar bu ci ne fatiha benn yoon inna ansalnaahu ak xul huwallaahu ahadun lu ci nekk ñaar yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh